القائل في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi nuyu ñëpp rek daayiratu jaalibatul maraaxi bi te sëñ Mouhamed ne ci bopp ba ak mboolem nag ñu aju ci daayri bi góor ñi jigéen ñi noo leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dagleen ab nuyoo itam sëñ Muxtaar mi nga xam ni wala wu yàgg na waaye nag gën nañu gise lool waaye nag xol yi rek am solo noo ngi koy sant it ci tawaay bu baax a baax a baax sëñ làmp bi may wax mbir mi mën naa wax ni léegi la murit nag dëgg nag amul programme waaye xam naa xat bett na ma lool daal bi mu koy wax yaakaar naa boobu dix heures jot na ma doo ko yëg ni dinaa jaar fii loolu moom foog ma jéggulu ci ndax day gàtt lool ah, waaye xëy na al dogale rek mën naa am bu ko fekkeetee mu gën a yaatu eh, waaye noo ngi sant yàlla ci teew gi bu baax a baax a baax sant yàlla ci liggéey bi tey jéggalu jàkka ji ndax dafa bokk ci sunna boo duggee jàkk rek nga def tahiyatul masjid loolu dama koy jéggalu xat-xat yee tax jàkk moom booy dugg rek bu dee waxtu daga naafila la waroo def loolu rek def tahiyatul masjid nuyoo ko jàkk ji loolu moo waroon am naa dañ koy jéggalu rek <laughs> eh, te di wax rek ni Eh, noo ngi ci eh, guddi goo xam ni eh, bu noonu amoon ci wolof baat bu ëpp guddi gu màgg la daana ko wax waaye loolu la muy wax guddi gu màgg la guddi gu rëy la guddi gu barkeel la guddi gu bari ngëneel la ndax benn guddi bu gënee juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer doy na ci mag guddi googa ndax junne weer mooy loolu mooy juróom-ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer mooy guddi goo xam ne nag a wóote yi bari na ci lool yéen ñi gëstu téere yi ci ahadis yi ak cooy xoolumaaw yi yu bari bari bari dëkk na ci ndax euh, yenn téere yi wax nañ yonent bi ne xamoon naa ko doon ko wax doon ko waxi nit ñi am lu mu ko fàttaloo waaye mu ni na ngeen ko séentu ci xaaj bu mujj bi maanaam wóote gi moom téere yëpp d'accord ñu mi ngi ci xaaj bu bi euh, loolu moom ñëpp ci d'accord gisuma benn téere bu wuuteeg loola ñoom ñëpp nee ñi li tuqara mi ci xaaj bu mujj bi maanaam fukk yi mujj yi daal hadis yëpp loolu la wax ci fukk yu mujj yooyu nag la wóote yi nekk am na jëf ñaar fukk benn am na ngi def juróom-ñeent am na ngi def fukk ak juróom-ñett li ëpp nag ci hadis yi mooy ñaar fukki ak juróom-ñaar loolu moo ëpp ci li dikk ci hadis yi am itam boroom xam-xam yoo xam ne dañoo wax ni bu weer bi teewoo rek. nangami fan la ci weer wa loolu am na mbind mu am na sax boo xam ne wax ni sëriñ bi waxu ko am na ñu wax ni sëriñ bi ko wax waaye bu mu ko waxee da ko jëlee ci waxi borom xam-xam yi euh, mooy nii nu koy doxalee noonu rek ren nag dafa tombeek bis bi nga xam ni moo ëpp ci xadis yi nii ñaar fukki fan yi guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar loolu mën naa wax ni téere yu bari bari bari ci la ñu mu tombeeg ren jii muy guddi goo xam ne itam eh, ñu ngi werante ci ruux tanazzalu malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa ruux nee ñi mooy jibril ñaan ngi ni benn malaaka moo xam ni guddi gi rek lay wacc ñu ci ëpp it nee ñi mooy jibril nga ànd ay malaayika ci guddi gi ba fajar jot ñu wax ni koo xam ne nelawoo ci guddi gi ba fadar foo yëgee sa yaram mel ni lu xaw a daw wala say bët traf wala sa bët mel ni lu attaa ay rangoon ne boobu Jibril saafoonte na ak yow loolu am na ko téere ñu ko waxee noonu euh, muy euh, guddi gu yonent bi salaama itam wax na ci wax yu bëri waaye soxna na ay bi ñu ko laajee ni ko xadar lu ñu ci war a ñaan muy da ngeen di wax ni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu mooy jàmm rek bi dañ si dañ naan jàmm nga xam ne jàmm sax mooy lépp waaye nag alquran jeeg alquran xam ngeen lu ko gën amul lu ko ëpp amul lu ko kawe amul wala sax moo gën lépp moo kawe lépp moo ëpp lépp alquran moo yàlla noonu laa koy waxee ndax alquran euh, du mbindéef benn melo ci melo suñu borom subhanahu wa taala moo tax li yonent di baax baax baax sëriñ bi nee na benn araf ci alxuraan moo gën yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wa xam ne alxuraan lu réy réy réy la min alquraani afdalu min nabiyina al adnaani alxuraan dara melul nii alxuraan dara tolluwul nii gis naa itam ci waxtaan wu doon def ak sëriñ Daam Abdurahmaan bi mu koy wax ci alxuraan ak ngëneel alxuraan ba Sëriñ Tuubaa wax ko ni ko boo doon ndékki xam ngeen ndékki suba teel la boo doon ndékki gëléem joge fii di daw lu mu mën ba tisfaar jot dawaat ba toog si fu nga doon ndékkee loolu moo daw lépp mooy tuyaaba yi benn arafa alxuraan xam nga kon alxuraan kenn tolluwaayam mu rek ko xam ah euh, kon jàng ko ci guddi gi wax bi jàng ko baax na saa soo jàng ko baax na bis soo jàng ko baax na waaye nag ci guddi gii itam tuyaaba gi dina yokkuwaat lool dana bariwaat lool euh, jàng ci itam euh, xasaay di sëriñ bi na ngeen ko xamee euh, ndax alxuraan xam ngeen ni mooy ndey xasaay sëriñ ci waaye mooy seen baay ci la ko jële doxale ko diggu boromam doxale ko digg nga ji mbindéef kon lu ci dabo rek ci guddi gi ci alquran ci xasida ci astaghfirullah ci salatu alnabi ci lépp lu baax rek eh, lu ci daañu ko daañu ko fële ni fële ni doo xam ni guddi gi rek la mën a amee kon sant ci yàlla bu baax te jéggalante ci àq bu baax xam ngeen it sëriñ def na ci ay abyaat miftaaxu nasri fii du ay taqari guddi xasida googu it am ngeen ko wala ku ko am xam ngeen ne dara gënu ko ci guddi gii ndax moom la sëriñ bi def tudde ko caabi ndimbal ci guddi laylatul qadar yii xasida googu mën naa maam fi miftaaxu nasri fii duaay laylatil qadri mu ñaan ci lu bari bari bëri bëri ci guddi gii loolu lépp laal luñ ci am rek e, nu nu nu suñ nu nu def ko e, jaamoo ko yàlla sant ko yàlla e, jéggaloo ko yàlla sàkku ci itam ay ndax fii ak lu bari bari la ci ko xam ndax diggante bis bii daaw am na yàlla dogaloon ñu fekk ko te yàlla dogal sax ren fekkewuñu ko ndax daaw ak ren lu bari jaar na fi xam ngeen ni dem ngeen fi ngénte yu bari waaye dem ngeen fi dem dëj yu bari nag su borom jëlee fi ñu bari indi na fi ñu bari waaye jëlee fi ñu bari mayee na fi xañee na fi yokkee na fi wàññee na fi teral fi teral fi lépp su borom ba ko defee ci yërmandeem ak mbaaxam bàyyi du rek ba ci yërmandeem bu nu fekkaa ren diwan bu nu fekkaa ren nu ko ñaan yàlla ci nu ngi ko sant bu baax sant ko yàlla sant yàlla bu baax ci loolu te ñaan ko it nag bis bii déwén nun ñii fi toog kenn bañ a manqué eh, wala ku manqué rek xëy na ittee lay jàpp waaye dee bañ a am rek loolu itam guddi gi lu ñu ci faggu rek lu ko ëpp ngi si ñaan ci yàlla bu baax a baax a baax jégalu ci yàlla bu baax a baax a baax a baax bu balonte ci àq yi bu baax a baax a baax a baax eh, ñaanal suñu bopp eh, ñaanal suñu njaboot ñaanal suñu mbokki taalibe ñaanal sëriñ bi sëñ bi sëñ Muntaxa moom barki démb rek wax naa ko ne ko nit ñi day ñëpp ngi la ñaanal gudd fan ak wér mu ni loolu day seen bëgg la ñoom waaye man de bu ma seen kenn du ma ñaan lu ngërëmal sëriñ Tuubaa rek allah bi ko bëgg ñaan lu ngërëmal sëriñ Tuubaa bëgguma ko wax na ma ko ba tàyyi mu ne ma lu ma waa la waaye daal man daal li ma kenn du ma ñaan lu dul ngërëmal rek laa bëgg ndax ngërëmal sëriñ Tuubaa rek am solo moo gën adduna li ci biiram moo gën lépp ndax nee na ma ngërëmal sëriñ Tuubaa ku ko am su borom dalay day say cër lay paralysé ba dootoo def mukk dul ngërëmal yàlla dootoo ko wax te mu ni ma bëgg sëriñ Tuubaa bu dee dëgg bu dee dëggu ci nit ki li ko tax ndax bëgg sëriñ Tuubaa baax ba dëggoo ci nit ki loo defaat ci safaan yàlla amu ko soxla bëgg sëriñ Tuubaa bëgg sëriñ Tuubaa rek lay xool ci yow boo bu seet safaan boo wanee sëriñ Tuubaa gannaaw wala nga eh, am loo ciy wax nee loo def ci lu baax lu loo rëy rëy yàlla amu ci soxla bañ nga bëgg sëriñ Tuubaa rek lay xool ci yow wala kon bëgg sëriñ bi te muy dëgg ci taalibe amul ko gën waxoon naa rek neen sëñ saa yi ni woon na ma bëgg sëriñ Tuubaa li koy wéral ci taalibe mooy da ngeen bëgg sëriñ Tuubaa li mu bëggoon te bañ na ko li bañoon wama abahu ya baahu boofu ngeen di jàng ak nekk ñun itam ne foofu bugg sëriñ Tuubaa li bëggoon ak bañ na ko li boo fa rek mu mbir ndax foofu mooy liggéey bi xam ngeen ni ñun ñëpp foo fekk murit ci àdduna mi ngi sant Serigne Touba ñëpp lay wax jërëjëf Serigne Touba baax na de war na ko wax itam ndax defa nañu lu ñu ko sante waaye nag fi liggéey bi nekk nag mooy ndax ñun defal nañu ko moom lu mu lu mu sante moom foofu la liggéey bi nekk ndax boo ko santoon milliards yoon mu santoon benn yoon ko gën te mu mënoo sant moom lu rek li may wax rek bëgg nekk lu mu bëggoon ak ba nekk lu mu rek ko nan nekk foofu te boole suñu bopp te bëggante te jàppante te dimbalante te suturaalante te wóolante te xam ne noo bokk jenn yaakaar kër yi li muy bëri bëri bëri bëri genn kër rek mu am mooy kër Cheikhul Khadim ci biir kër Cheikhul Khadim am na jëriñ yoo xam ne am nañu fa mu nekk waaye kër gi kër rek la daal mi ci la bokk daal xurus ci la bokk daal salaam daal yi du jeex kër yi waaye genn kër rek mooy kër Cheikhul Khadim kon noo bokk benn yaakaar kon ànd gi itam mën naa rafet lool mën nañu bëggante lool mën nañu wóorante lool mën nañu jàppante lool nga jëmee Serigne Touba rek te nu gëm ni Serigne yi nu adduna bi toll fu fi bi nekk gis na la xam na la gis na la xam na la loolu bokk na ci ko sama borom defal Serigne Touba daan wax ni ma euh, bu sant Serigne Touba bu ko santal kenn waaye def ci moom tax gis na ko xam na ko kon jëf yëpp lépp bu ko dajalee li ñu jàng ci alxuraan ak li ñu def ci ay ñaan lépp rek nañ ko rek def ko addi Cheikhul Khadim ndax boobaa lay gënee boobaa lay ëppee boobaa lay gën a baaxee lépp na ko sant Serigne Touba delloo ko Serigne Touba rek daf ko addi am loolu ci jàng rek loolu def lu baax rek ñu ci jublu rek daf ko addi Cheikhul Khadim ndax soo waa mu ngi mel ni nga am benn kaasu ndox sotti ko ci biir géej dootoo ñàkk ndox loolu jàng ci alxuraan ci xasida ci ay ñaan ci lu baax lépp lu ko def sa addi Cheikhul Khadim rek fa lay gëne fa lay ëppee fa lay gën a baax te itam bu waa yàlla na ko ko ndax boo ko defee lay rek yàlla mën na ci waaye boo ko defee addi sëñ Tuubaa yàlla ko jëloo mukk lépp nga ko def ak liggéeyee sëñ Tuubaa sant ko ko euh, sàkku nag ci moom euh, mu dimbali nu dimbali nu boppam ñu dund ci moom dee ci moom dekk ci moom ñëpp nu bokk ñaan yàlla bu suñ dara gën a sëriñ bi yàlla bu suñ dara gën sëriñ bi yàlla bu suñ dara gën a sëriñ bi loolu loolu loolu loolu loolu rek loolu rek la loolu rek moo ci solo te nu gën a euh, bu ya ba euh, man lu mat euh, maanaam yaakaar naa fukki fan am na mbooloo mu ñu gis Sëñ Muntaxa doon ko siyaar waaye li leen diggal ñun ñëpp war nañu koo dégg war nañu ko bàyyi xel ndax dafa leen wax ni leen nan defar jukki yi doog a yor jukki yi. nañ defar jukko yi doog a yor jukki yi yor jukki yi mën na waaye defar jukki yi moo jafe loolu si mën taxaw wax ne nañ defar jukko yi doog a yor jukki yi loolu loolu it loolu loolu itam loolu ndax danay wax bari na ci suñuy waxtaan ma ni leen xaalis jafewut kër gu baax jafewut oto bu baax jafewut loolu saa si am nañu ko yéefar yi am nañu ko naafeq yi am nañu ko li jafe mooy murid mi ñuy wax murid rekk jafe murid rekk jafe yées dara jafewu ci waaw ndax looy daraja woo ak di ko tiitaroo ab saa saa gën la ko ëppee la ko wala ab yéefar gën la ko ëppee la ko loolu koo xam ne xam ne loolu dara kon ngëneel yi ak daraja yi mu ngi ci ndigal yi rek ak bàyyi tere yi rek daraja amul fii li ñuy amul fii personnalité ëllëg lam daraja ëllëg la am yii lii lu gàtt la lu tuuti la lu néew la lu gaaw a jeex la maraati bi ëllëg la am ëllëg li ngeen di jàng ci sootul kawsar inna aataynaaka al kawsar al kawsar mooy xawdul mawlud mooy mbalka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni ëllëg am nañu bu ñu egsee rek daa ñuy fekk Sidna Omar taxaw di leen taxal naan ñii Ousmane ñii Ali ñii Aboubacar Sadiq am na ñoo xam ne yonent yàlla Muhammad ci boppam moo ñu tànqal ñuy naan am na ñoo xam ne daa gis ay kaasi leer yu teg seen gémmiñ naan te xamuñu lu ko téye benn xitaab dañu wax saqaahum rabbuhum sharaban tahura kon euh, maratib yi ak ngëneel yi ak daraja yi ak maqaama yi yëpp ëllëg la ay fii daanaka jaawaay bu gàtt la bu néew la bu gaaw a jeex la kon nag ndi ndi suñ am bul sañoon rek suñ lépp nu jëmale ko ci yàlla jëmale ko ci sëriñ bi ndax sëriñ bi moom ku jëm ci sëriñ rek ci yàlla nga jëm ku jëm ci yàlla la jëm ndax daan na wax ni kenn du bëgg yàlla kenn mënta bëgg yàlla dima bañ man daa na ko wax lu bëri bëri bëri kenn mënta bëgg yàlla ba noppi dima bañ man mii ndax mënul kon bëgg sëriñ bi mooy bëgg yàlla bëgg yàlla mooy bëgg sëriñ Tuubaa rek kon bu nekkee foofu rek ah euh, lépp dana baax euh, nu gën boole seen bopp gën a góorgóorlu ah alxaana gi nii xasida yaa ngi nii xam ngeen ni waru dafa yomb lool ci suñu jamono ji nit ñi itam waxkat yi wax daa ñuy réer ñu bare ay wàcc ñu bare am na bu yàggul am na benn ko ñu tudd borom xam-xam koy waxtaan ñoo ngi ci biir si mun taxaa ne ci biir néeg bi ne saal bi am ko teg benn bande mu cay wax ba naan murit day jànga xasida woo gën ci moom jàngal alxuraan sëñ bis mu génne tëye ko sax dañu waxul dëgg de day waxul dëgg de waxul dëgg de wala suñu mën taawa waxul te waxul dëgg alxuraan alxuraan lu yàlla am na alxuraan mooy yàlla lu gën alxuraan amut sëriñ Tuubaa ci mbindam loo fekk ka mooy alxuraan la gisal teg ci xadis la gisal ay xasidaam yi waaye mës ta jël xasida gisal ko ci alxuraan mënta nekk ñu koy waxuñu dëgg mbindum sëriñ bi nag ku ma am lu gën a wér mbindum sëriñ bi de yaa xam foo koy jëlee waaye li sëriñ bi bindal boppam daal a wér ñaan alxuraan la jiital ci léppam loo ngi ci xasaay xasaay dem yi ci alxuraan la la ko jëlee kon murit di jàng alxuraan murit moo jàng alxuraan doo jàng alxuraan loolu xaw ma ko murit ndax jàkk jàng alxuraan loolu loolu loolu loolu li ci sëriñ bi insisté ci ndigalam yi ba ni addin tilaawatan lil kitaabi wal sar min asaabi doon tey sax ñetti asib la na nga ko saxal ci bés bi boo ko mën sax loolu sax rek baax na faqru maa tayassara waaye alxuraan mën ñàkk nit ko jàng juy di ko jàng kon noonu li bi jiital nañ ko jiital am ci teg ñu teg ko ci man mii de sëñ Muntaxa mii fi ne waxoon na bu yàgg yàgg yàgg ñu bëree fekk nañu ko ñii dégg nañu ko mu ne ma be ba di bind xasida Sëñ Tuubaa tax loolu yi ne lool waaye may itam gis sama xel mu gàtt mu ne xanaa kon dara xasida tax yàlla bind ma kon alxuraan xanaa jarul ma ciy sonn waaye bis ba yi naa ko ko laaj. ma ñëw ma ne ko dafa am lu mu la bëggoon laaj mu ne ma nu mu demee ma ne ko gannaaw da wax ni bi mu yàlla bind xasida yee tax xanaa kon alxuraan bu ne xanaa rek mu dogoo ci wëf dem ab diir bu yàgg ñëwaat yor benn kaamil ak benn doolu xasida bu ñëwee mu teg sama kanam teg loxo la jëram ci kaamil bi ni ma di lekk ci ndawal lii tegaat ci xasida yi li ma tee naan ci meew mii waaw kon boole leen noonu moo yoon wax loolu mooy ndigal li noonu ko suñ faa bëgg noonu jàng alxuraan jàng xasida waaye yenn gars yi li ñuy wax dara yooyu ci man nag gisuma fu mu wax ni ku nangam ne doo jàng waaye gis naa suñ faa bind ni yii mbir yi ku mu ne ci yow doo jàng alxuraan mukk gis ngeen ko ci Ahmad Souleymane juróom-ñaar la zanbun wa kibrun waaye sax alami bu ñu xaati juróom-ñaar yooyu ne ku xam ne bakkaar nga ci yow doo jàng alxuraan ku na ci yow doo jàng ku ku nuur ci bakkaar doo mën a alxuraan kuy kuy fo doo mën ku bëgg adduna doo def ay bilaad doo jàngal alxuraan yooyu gis naa bi ne koy def doo mën a jàngal alxuraan mukk yàlla yàlla dogal bu fekkee ni euh, jàng yàlla bu dul yooyu moo nekk ci ñoom waaye sëriñ bi daal nee ku yi nekk ci yow doo jàngal alxuraan mukk kon ñàkk a jàngal alxuraan wóor ñàkk a jàngal alxuraan nekk loolu li sëriñ bi gis na leen ko jiital dañ ko teg teg ko ci yoon wi loolu mooy li loolu fa la gën a nekk kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax euh, euh, euh, ci ndigali sëriñ bi lim bi dal boppam ni mu ko waxee rek loolu mooy li gën a wér xiste yi nag bàyyi na lool waaye li ci gën a wér daal man daal lu gën a wér bindum sëriñ Tuubaa man xaw ma ko gisuma ko it nag waaw te daanaka daal xiste yoo xam ni boo ko xoolee day wuuteeg si sëriñ Tuubaa bi dal boppam loolu xam nga wérul kon kon li mu jiite rek nañ ko jiital ci teg bu teg ko ca loolu mooy mooy loolu mooy mbir ma loolu mooy la gën a wér nu nu nekk foofu eh, te sax foofu te kenn bañ faa jëlee man daal loolu laa xam loolu lay laaj nekk fa foofu la sëñ bi nekkalu te foofu nekkalu moo gën li ci des nag suñu xalaat bopp la am na xis yu ñëw yi nangam bàyyi diw ne nangam maam diw ne nangam waaye daal loolu wéeru ci mbindum sëriñ Tuubaa mi bindal boppam daal loolu daal mooy la gën a wér te xam ne sëriñ bi moo la gën a xam boppam ñu xamul ci moom dara moo la gën a xam boppam moo boroom ñoo xam ñoo xam nañu ànde xam naa la ci wir ëllëg yóbal xiyaam daal lañ lay leer waaye fi mu ne nii mii ak boroomam mii ñoom ñaar rek ñoo xam am na ci loolu lu ñuy wax ci pénc bind na ko waaye daanaka jarte wax ndax ni ma ko waxee rek moom moo gën a xam boppam moo gën a xam li mu doon waaye nag fi mu bëgg ñu ma ko fa ñu ko yemale foofu rek moom li mu tànn mooy abdan lillahi wa xaadiman li rasulillahi gannaaw yi la tànn dañ ko bàyyi foofu rek murit bu bu daanu nag nii sëriñ Tuubaa yàlla ah jël moom kenn du ci dëkk bu jël bi jeexee mu ñëwaat nekkaat fii rek waaw ndax jël kenn du ci dëkk waaw waaye sëriñ Tuubaa yàlla jaru ko waaw ndax moo moo moo gën a xam boppam te li ma wax daal moom moom daal lii la tànn man ranna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimin nabi fa sahi moom daal fii la nekk abdan lillahi la tànn ak xaadiman rasulillahi fii la tànn nag dañ ko bàyyi foofu rek ak yées nag suñu newu ca su ñu nekku moom moom moom xam boppam waaye fii doy na sëkk ñoo ko yemale foofu rek jaam bu jaamu boromam liggéeykat bi liggéeyal ngi ñu bi sallallahu lii mooy mooy mooy mbindu sëriñ bi fii la bëgg na ko fa fii la bëgg na bàyyi ko fa ah, nan ko bàyyi foofu yemale ko foofu nekkal ko foofa ndax foofu la tànn li gis nag ah, euh, moom moom moom moom moom euh, jaru ko daal jaru ko daal jaru ko daal waaw daal la gis Cheikh Rafal tontu woon ah, na bi ko la nag Sëriñ Tuubaa moo yàlla na am na ndey ak baay de am na ndey ak baay de te yàlla amul amul baay waaye bu dul moom it day maa ngi la yemale maa ngi moom la yemale ndax bu dul bu ndax ndax lu ma wax ma def ko lu ma wax yàlla yàlla def ko lu ma tere ma bàyyi lu ma tere yàlla bàyyi bu dul yàlla it maa ngi yàlla yemale képp loolu nag doy na sëkk. it ku dem it ku dem ba yàgg ci surtout layi sage ila ila isa machid bi abdin wala dem ba nii lu moo soob yàlla balaa dara soobati yàlla soob man ba noppi kenn mënut a weesu kon ñoom ñaar ñoo xam danga ko may faay dañu daal li nekk dañu doon ay taalibe bi yaakaar Serigne Touba wóolu Serigne Touba di déglu bi te bay bàyyi taree Serigne bi lii daal fu nekk lii daal moo di murit lii daal moo nu war li ci nag moom suñu mën la ca bañ a nekk góorgóorlu gi daal ak ànd gi ak nekk ki benn ak boole suñu bopp loolu daal luñ ci ci luñ ci am rek doyut ndax fii rek la mbir bi nekk man daal saa su ma gisee murit di wax ci borom muy itam lu rafetul wala lu ñaaw dama xam ne mën naa waati buti boobu fóonagul xëdu sëriñ Tuubaa sax ndax sëñ Muntaxa nee na ma man man murit du seet na mel ak la mooy def ak samay new ca li ko tax di murit lay xool ndax ne woor ma yoon yi ku ci dëkk rek borom moo ci indi te sëñ du juum du jaabante kon murid yi muytu Sëriñ Tuubaa lañu moo xam seen mbir moo leen mën a atte moo xam fu mu leen jëme yoonu kenn nekku ci kon lii moom mooy li nga xam ni buñ fa nekkee daal lépp dana baax kon wax ji moom bari ak néew ah, man daal lii laa ko doon wax ci gàttal ci ndigal sëriñ bi ah, suñ diine jii amul moom na ngoy ci ah di di di di li ci koy def ah, am na ñu am jagle ko suñu taa waxee ah boo demee jagle nga ci ay jagle nag jagle nag du ñëpp dañu am na yàlla jagle ay jagle waaye rek ñëpp loolu li mu digal ñëpp daal mooy chériatul mu taxara am na ñoo xam ne nag nekk nañu feneen loolu itam yàlla leen ko jagle la dawee nag dañu ko bàyyi borom loolu mooy mooy loolu mooy mooy mooy mooy ci am solo kon euh, nanu nanu no wax ji moom bare gudd gàtta gudd daal loolu moom dara amu ci solo eh, eh, daayira bi mu ngi tudd jaaybatul maraaxi bi moom mosuma de ko wax lii ma ne ko man mii de ndekk jigéen laa bëgg mu ma ma ne ma jigéen laa gën bëgg ci sëñ bi kat waaw mu ne ma lu tax ma ne ko def naa ci jigéen téeméer junne ak fukk te te sama yow ma sëñ su ñeen fukki junne jigéen leen bëgg bëggunu sëñ bi waaw bari nañu toog fii ñu am soxna la ci soxna sax dafa joxoon ñu seen wasila loolu du murit mbir mi a wax de waaye mooy dëgg de barke si li mu ñi jaral sëñ bi jaraloon ko maa la wax lii man te man ko tàmbalee dama ñu def naa man mii def naa jigéen téeméeri junne ak fukk ci jigéen ji man la te sëñ Muntaxa bi sa wasi la jox ma ko ñeen fi ko junne xanaa xanaa ko xam ma maa yées ñëpp man man ñëpp ma ñëpp ñëpp ma ñëpp ma gën man te bari naa ci lool bari naa ci morom lool am ñoo xam ne daf ñu jigéen loo xam ne joxuñu ko seen wasi la asaka sax joxuñu ko seen wasi la loolu du murit jigéen ñi leen bëgg bëggul sëñ bi jigéen ñi bëgg man maa wax lii ah euh, ma noo ngi noo ngi jégalu ah, dëgg rek loolu dëgg rek waaw bàyyi na fi ñu toog am boo la laajoon liñ def ci jigéen joxuñ ko sëñ bi ko ana bëgg sëñ bi waxuñu dë waxuñu dëgg de waxuñu lu de góorgóorluñ de barke si waaw xanaa waaye xanaa dëgg la wax waaye sëñ bi téeméeri junne Mouhamed téeméeri juróom fukk mu jox ko jigéen man man mii laa wax de jox sëñ Muntaxa ñeent fukki junne loolu mooy lan man maa yées ñëpp de kon jigéen laa bëgg bëggulu sëñ bi loolay dëgg ah a wa rahmatulah waaw man daa sa dafa mën maa noonu man zannani gayra xadimil Mustafa fa innani axdimuhu bimastafa axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal muna wal minna man zanna أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا فغره الضلال والإضلال ينقاد لي منه بالحلال مدحته قبل لدى لي برولي متحن ونا عن مثله كل ولي مدحته مدحا لدى ما ينبى مع عيوبي وكف الذنبا مدحته عند أناس القلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إلي خدمة قد لازمت روضته إلى القيام أظمت رضية عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول هدي عني سبته جيلاني عليه ضوان الذي أعلاني هدي عني سبته أبو الحسن عليه ضوان يخلد الحسن هدي عني سبته تيجاني عليه ضوان مبيد الجاني هدي عني خلفاء أربعة حست منا رد عني خلفاء الأربعة هتيل المقربين المتبع من لم يكن عني يرضى فالكريم ربي أني أيضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل وعدا أنجزا صلاة من كرمه يلقاني على الذي هنا المرا لقاني maa ngi jégalu mu ngeen doon déglu fukki bi ñett fan yëpp xam ngeen njàng mi awul yoon ndax euh, euh, nee ñu ay coono la loolu la fari wax baat bi demeetul noonu dama fa jàng rek waaye ba tey euh, des na tuuti moo tax ñu yemale ko foofu <coughs> tey ñaan nag lan waa rek ak barakaati mën ak fadaayil yëpp su borom booy na ko defal eh, ci barkeb guddi gii barkeb sëriñ bi eh, sëriñ Muxtaar na ngi sant bu baax eh, wala lu yàgg la ci Europe daje nañu fu nekk wallahi wa kitaabil azim ak barke guddi gii am ñu ma laaj ma ndax kii mbàkk mbàkke la ma ne ah waaw waaw mbàkk mbàkke de sant rek la waaye nag am nañu ku dox ci bi jaawal ak ñu sëriñ bi waaw dañuy wax ne doomi sëriñ bi ak taarib sëriñ bu ñu leen jaawalee rek bu ñu leen rek am na ci ku des waaye taalibe mën na am na nu mu comporté woo am na lu mu bëgg sëriñ Tuubaa am na lu muy sell ba kenn du ko xam ne doomi sëriñ bi wala sëriñ bi sax wala laa ko tontu te mooy dëgg it nag ndax Cheikh Issa ko sa laal ah, wax dëgg yàlla mën ngaa mel nu ne waaw ah, Cheikh Issa moomu radiyallahu anhu ku ca laal te xam li nga doon mën ngaa mel mën ngaa doon ku ne mën ngaa mel nu ne mën ngaa ku ne <laughs> loolu rek la ma ne loolu rek mooy seen seen waxtaan loolu laa xam ci moom ah, murid la bu dëggal bu sell bu xam boppam xam li mu am xam fi mu bokk xam li mu yor xam li mu bëgg xam fu mu jëm lii rek mooy suñu waxtaan euh, euh, loolu wax naa ko boo nekkul moom laa si wàcc ak tey rek kon nag ñoo ngi sant bu baax jànn te ñaan itam nag si barke Cheikh Issa eh, su borom euh, murit daal bëgg doon na yàlla na yàlla nangu suñu suñu tawaat nangul suñu murit ba faw te su suñu dara bañ koo génn te mu téer la boppam lii daal mooy mooy ñaan gi suñu na sëñ Mouhamed yi fi dafa gàtt lool te bette lool xam nga programme boo xam ne yàlla xam ne moom boobu boobu onze heures genn sax onze heures si guddi laa doo ko yëg lii xam nga loolu itam wax dëgg yàlla nag ah moom moom dafa doy na waar waaw ah, waaye nag bu déwén ak jàmm ah, bu déwén ak jàmm maa day ñaan naa ci baax sëriñ bi ak barkeb Cheikh daa war Cheikh dafa lay waxal nun ñii fi toog daal déwén yéen xamante ngeen yéen moom moom ku ku dikkul déwén rek yittee lay jàpp waaw mën naa am ku wutee ret déwén ndax yitte yi bare na waaye nun nun foo ko nekk rek kenn bañ a faatu rek lool loolu daal man man ñeme naa sama waa jooju lool man moom ñeme naa ko lool te loolu ñaan naa ko ko te dana am itam waaw li nag noo ngi ñaan itam ci xasida yin fi jot a yëkkati yàlla sukkandiku ci ba bu ñu fi jegee yàlla sukkandiku ci baaxu Cheikhul Khadim ba jéggalu sunu lépp sunu lépp nag bañ ñoo topp ci dara moom yàlla ba ñu tabbi àjjana rek lii daal mooy wax ji